monsieur Faye Matar Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa di fay di leen sant ci invitation bi. ngay directeur nouvelle prévention routière directeur exécutif tamit bu association des assureurs du Sénégal tey ñu wax ci benn rapport euh, bi nga xam ne euh, fësal na ni Sénégal ëpp ci euh, six cent ñoom ñooy ñàkk seen bakkan at gu nekk ci yoon yi li ni mel tiital na askan wi lan moo waral yow mi nekk ci prévention. intervention routière selon yow lan moo waral accident yu métti yi. waaw xam accident yi moom wax dëgg yàlla temps yi moom euh, bëri na bëri goo xamante ne euh, na dayoo. Mhm. te dem na tamit ba jaaxal askanu Sénégal. tey jii amul kuy xëy te waaru woo ci lii xew ci tali bi. Mhm. Euh, fukki nit ñaar fukki nit ci accident bu ne ñoo fay faatu. Mhm. wax nga ko léegi bi ñu ko xaymaa ci à l'échelle mhm. mu toll si juróom benn téeméeri nit ñàkk seen bakkan. Mhm. sans compter maintenant ña am ay gaañu gaañu toll na ci ñaari junni ba ñetti junni ay gaañu gaañu yoo xam ne du ay gaañu gaañu yu ndaw mais gaañu gaañu yoo xamante ne yi ñooñu ils resteront handicapés à mhm. soit seen tànk dagg na soit seen tànk seen loxo dagg na soit seen euh, euh, bët toj na. Euh, donc mu nekk loo xamante ne lu ñuy métti la lu ñëpp di ñaawlu waaw loo xamante ne lii wax dëgg yàlla jéggi na dayoo. la koy Euh, ñëpp xam nañ ko mooy que ne euh, nit ñi dañoo àndatoo seen sago léegi. Mhm. da ngay gis ne nit ñaa ngi daw ay xel yu metti yaakaar na dañ gagné alors que il a été démontré que la vitesse du tax nga gagné temps te yàgg nañ ko également ci suñu campagne de sensibilisation yi def leen ndànk tey leen ci tali bi. Mhm. parce que def ndànk terewul kenn egg fa nga jëm. wax nañ leen ne également coono dafay indi accident. Mhm. di nga gis léeg nit ñoo xamante ne nii ñu ngi daw ay xël te daw xël yooyu métti yooyu mooy indi coono. Mhm. te boo sonnee te arrêté woo coono googu moom mooy transformé en gëmmentu te ñëpp xam nañ ne gëmmentu di dawal xep xeppi la dangay fi ngay sëggee ak fi ngay xippee saa yi da nga si oto jàmbur wala sa abordé nga un virage daal di saaraar ña nga nekkoon si oto ba faatu wala ñu am ay gaañu gaañu. bu dee marchandise aussi marchandise bi këpp ci kaw tali bi. Mhm. te loolu vraiment kenn ñaanu ko. parce que tey jii il faut que les gens xam benn mbir. Mhm. mooy que ne prendre le volant doit être un plaisir. tey jii boo ci oto dawal da nga war a am plaisir di dawal oto boobu en respectant les règles de circulation mais tey kenn respecté wul dara donc à quoi bon peut-être de faire le permis de conduire bu fekkee permis bi la jàng bi la dañ la ko jox ca pour wax la ne. comme réussir nga en fait examen bi. Mhm. mooy examen théorique bi. Mhm. maanaam sart code de la route yi waaye aussi réussir nga conduite automobile bi ci jox la permis bi waaye yow ginnaaw bi nga ko amee ba pare nee nga yow sama yoon nekkul si tali bi lu ma neex lay def. Mhm. waaw loolu nag ba kañ pendant ce ñaa ngi dee nit ñaa ngi yàqule. donc il faut que nag ñu def taxaw seetlu taxaw seetlu boobu mooy lan mooy ne kat li ñu gis tali bi. gis nañ ñetti catégorie dawalkat ki nga xamante te jëfee li ñu ko wax mokkal na code bi. Mhm. waaye mi ngi jëfee li koy wax. Mhm. ki nga xamante ne am na permis mokkal na code bi. Mhm. waaye nee na du jëfe ki nga xam ne am na permis mokkalul xamul di def lu ko nekk si ko tali bi. loolu nag euh, ba kañ. pendant ce temps am na ay règles yoo xamante ni maanaam teg nañ ko si ko taabal ji nekk ku dugg ci tali bi. nii nga war a jëfe mhm. boo jëfewul nii yoon daal sa kaw mhm. donc tey jii accident yi li koy indi xam nañ ko xel ci la bokk indiscipline ci la bokk impatience ci la bokk intolérance maanaam ci la bokk insouciance ci la bokk maanaam non lu am rek yàlla waaw mais mu mel ni da nga jël lépp xëpp ko chauffeur si. non pas chauffeur conducteur laay wax. Hmm. man du ma man du ma wax chauffeur parce que dama naan conducteur. conducteur mooy kan mooy képp koo xamante ne gi rek. am nga permis jël nga sa oto muy particulier bi muy transport de marchandise muy transport de de de de de de en commun. Hmm. muy képp koo xam ne rek am nga permis yaa ngi dugg si tali bi. Hmm. waaw donc ba ci sax les conducteurs de deux roues motorisées. donc ñun man man ci ñooñu laay ñooñu ñooñu ñëpp laay waxal donc pour la ñooñu nga xamante ne am nañ seen permis ñu ngi ci tali bi mais wax dëgg yàlla nañ jëfee li taxu ñu jox leen permis bi. Mhm. buñ ko jëfeewul nag mais il faut que l' état soit fort parce que l' état est responsable de la sécurité routière l' état est responsable donc l' na nekk un état fort ne lii du fi amee mais tey jii am na loo xam ne ça échappe à l' état moo tax tey jii nit ñi def leen neex. Mhm. di nga gis ñoo xamante ñu dawal moto te amuñu permis sax. da gis ñoo xamante ne sax ñu ngi ci seen classe bi dawal aussi am ñoo xamante ne ñoom seen yoon ci ci ci ci panneau de signalisation yi am na ñoo xamante ne dañuy sonn waaye dañ naan ñoom tànk egguñu fa ñu jëm euh, duñu taxaw am ñoo xam ne dañuy gëmantu boy ba duñu gis mais dem mhm. di gis ñoo xamante ne ñii am nañu oto oto ba amul lumière ñu jógee fi guddi nañu ko jëm euh, Kédougou wala ñu ko jëm Tamba am ñoo xamante ne seen pneu boo ko xoolee tey jii doo dugg ci oto boobu donc loolu lépp nag dafa laaj du courage et de la détermination. Mm-hmm. pour que tey jii ñu ne kat li fi amoon dootu fi amati. yàgg nañ leen may tey dootuñu leen baal dara dootuñu leen may dara. Mm-hmm. man voilà ce genre de discours que j'attends de nos autorités. parce que no également on est une force de proposition. olof gi. Mm-hmm. waaw dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy am suñu xalaat di ko joxe. di ko parce que en tant que expert dañuy xamal ne kat lii bu ñu ko defoon lii mën a jur saafara. donc tey jii je suis convaincu que tey ci wàllu solution. Mhm. pour am une sécurité routière durable suñu dëkk. Mhm. mooy nañu tàggat nit ñi. Mhm. ginnaaw bu ñu leen waaw. wax nga ko juróom benni téeméer nit ñu ñàkk seen bakkan li ni mel euh, war naa tiital ku nekk mu mel ni loi orientation bu bees bi ñu andi ci transport terrestre soppiwul dara. en fait comme comme ni ma ko waxee rek c'est-à-dire en fait c'est une loi d'orientation sur le transport. Euh, bii ma gis nii te mu jaar assemblée wax dëgg yàlla suñ ko toppee mën na jur lu rëy rëy ci wàllu amélioration. maanaam ah ok parce que tey jii il faut le dire aussi au niveau du ministère des transports. Mhm. vraiment ñoo xam ne seen xam-xam màcc nañu ci wàllu transport ñoo xamante ne yàgg nañ fa te maîtriser nañu la ñuy def. Mhm. donc tey jii du ñoom rek ñoo fa nekk sax parce que am na ñeneen ñoo xamante ne ji dañuy ñëw wàllu yan see maanaam ay consultants. yoo xamante ne également seen xam-xam màcc nañ ci wàllu kaaraange yoon ci wàllu mm-hmm. transport ñooy ñëw avec ñooñu mm-hmm. la ñuy defee document yooyu document yooyu nag toujours nag bul foog ne rek dañ koy décider tey rek wala ñu voté ko tey rek suba mu jox ay résultats mm-hmm. résultats yooyu il faut ñu séntu ko fii ak benn at ñaari at ah, le temps de mettre en place le temps que mu huilé a kii parce que tey jii dañ nekk ci secteur boo xamante ne un secteur très complexe di nga jël décision sax mais décisions yi di nga toog peut-être ay weer avant ñu koy mettre en application am na décision yoo xamante ne sax dañ koy jël mais kenn du ko appliqué. tey jii pour preuve les camions dañ ne waruñu dugg Dakar pas avant 9h. Ah mais pourtant 7h du matin hey ñoom yéen bokk tali bi. waxtu wi sax boo demee yéen ay mbëkkante. voilà à partir de 16h dañ ne waruñu génn pour laisser les ñu ñibbi ba pare mais yàq ñoom yéen bokk tali bi. Mhm. de 16h ba 22h yéen a bokk tali bi donc pour wax la rek ne euh, volonté am na bëgg nañu def document yaa ngi fii. dispositif yaa ngi fi mais lenn rek moo manqué mooy en fait détermination ak courage maanaam fit goo xamante ne gi dañuy ñëw def te duñ ci boole wax ju bëri. Mhm. bu weesoo ñi ci ñàkk seen bakkan tey euh, sécurité routière mën nañoo ne ci koppar euh, état du Sénégal dina ci ñàkk cent soixante-trois milliards loolu tamit euh, ñu war cee am taxaw seetlu. waaw 163 milliards boo ko doon évaluer mooy 1 pour cent wala 1,5 pour cent suñu PIB. Mm-hmm. produit intérieur brut. donc mu nekk loo waaw mu nekk loo xamante ne lii euh, xaalis bu la euh, en de réparation en de d'hospitalisation mm-hmm. en de de de de comment ça de soins boo ko xoolee tey jii xaalis boobu mënoon nañu ko jël tabax ci ay hôpitaux. Mm-hmm. pour améliorer le plateau technique. mënoon nañu ko jël tey jii tabax école. pour en fait euh, classes yi nga xamante ne bi ay cent élèves afay nekk ay quatre vingt dix élèves hmm. ñu wàññi ko def ko ay classes de vingt vingt cinq trente élèves au maximum hmm. loolu aussi mënoon nañu ko jël aussi pour améliorer en fait la sécurité routière ci wan-wan maanaam defar ay tali yu mucc ayib mais également yokkaat encore ay centre de contrôle technique yokkaat également ay panneaux de signalisation parce que léeg-léeg nga daw tali boo xamante daw ay deux kilomètres trois kilomètres doo ay panneaux de signalisation mhm. donc je pense que ne tey ji xaalis boobu mënoon dugg ci hôpitaux yi dugg également ci wàllu éducation mhm. mënoon sax dugg ci dimbali nit ñi sur le plan social mhm. parce que am na ñoo xamante ne ils lekkuñu naanuñu. donc mënoon nañ ñu les familles pauvres la comme ni ko euh, président di defee di dimbali ay famille yoo xamante ne seen loxo jot seen ginnaaw. ñu améliorer maanaam ñu ñu augmenter en fait le nombre la parce que tey jii wax dëgg yàlla neexul ba neexul mais ñooñu nga xamante ne président mi euh, buñ ko yokkoon tamit Ah, wax dëgg yàlla euh, kenn du kenn du wax mhm. kenn du wax dara mhm. waaw tey jii euh, vraiment que euh, ngay dimbali cent personnes ëllëg nga dimbali deux cent personnes je pense que vraiment ña ñuy dimbali duñ def loolu àpp lu li lu tàccu parce que wax dëgg yàlla nit ñi am na ñoo xam ne soxla nañu ndimbal donc li may bañ rek mooy ñu continuer ci lancé bi mhm. di soofantal accident foog ne l' est une fatalité alors que c' pas vrai xam nañ dans quelles conditions se produisent les accidents lenn rek moo ci def mooy solution yooyu dañ ko teg ci taabal ji et état bi joxe ay pour ñu appliquer ko pour que ñu mën a wàññi. maanaam ñiy faatu. solution yooyu le euh, ci ñaar rek ak ñett wala ñett yan nga jàpp ne buñ ko defee euh, li ni mel dinañ ko dakkal. mooy nañu continuer di tàggat maanaam dawalkatu oto yi di leen ñaax loolu ñoo ànd formation sensibilisation information ci maanaam les dangers de la route. Mm-hmm. ñaareel bi mooy que ne. nañu euh, euh, comment dirais-je nañu def benn euh, impo imposer mhm. un binôme contrôle sanction mhm. maanaam binôme contrôle sanction parce que man li may bañ mooy lan mooy en fait que ñu contrôler tey ak ëllëg parce mhm. que y a eu beaucoup la semaine dernière ba pare daal taxaw déedéet dama bëgg mu nekk un contrôle permanent mais boo contrôler aussi ña ngay bu buñ deful naka sudul noonu ña teg ay daan seen kaw daan yooyu nag amul xaaj seen na amul ku mën am ndey amul ku mu amul ndey non non nañu jël ñëpp ko képp koo xamante ne kii citoyen képp koo xamante ne nga mhm. yaa ngi ci circulation bi am mhm. nga permis yaa ngi dawal dañ ne la na nga respecté charte code de la route boo ko respecté wul nañ la teg daan ya mhm. amul kii euh, colonel la amul ki gradé la amul kii ministre la amul kii avocat la amul kii député la maanaam ñun ñëpp ñoo yem ci yoon donc bu boobaa ki nga xamante dafa am ay écart lan ko sant def ko. Mhm. parce que daan yooyu moom mooy tax ëllëg yow. nga réfléchir par deux fois avant nga defaat même erreur bi. Mhm. donc su fekkee nag on n'est pas là pour corriger les erreurs mais les gens vont continuer à faire des erreurs donc moo tax ma ne il faut benn contrôle benn binôme contrôle sanction ñu imposer ko benn ñaareel bi nañu en fait di tàggat nit ñi ñetteel bi aussi nañu xool les routes nationales. Mhm. par Euh, possibilité état bi parce que état aussi certes am na ay jéego yu rëy yu mu def ci wàllu tabax ay tali. Mhm. bon xëy na peut-être mënul chaque jour mu jël le même budget def ko tali mais ñu jël par étape jël tronçon Dakar Thiès Saint-Louis xool partie yi nga xamante ne mën nañ séparer yoon yi ñu jël également. Euh, beneen ay yoon ñu am budget pour le cas de Dakar jusqu'à Tamba. Mhm. beneen yoon bu ñu amee budget également le cas de Dakar Thiès Diourbel ba Touba mais ñu ko def par étape je pense que ne loolu étape par étape parce que mënuñu xëy rek def lépp c'est pas possible ça va coûter très cher et ils n'ont pas les moyens mm. donc je pense que ne nañu jël euh, option boobu et lii ma lay wax nii séparer voies yi au niveau de routes nationales kooku bu ñu ko defee incha allah ren ba déwén di nga gis na accident yi wàññeeku na de moitié loolu moom c'est sûr que ne conception boobu suñ ko defee di contrôler régulièrement mën a am naa na sax peut du ñu egg sa deux cent morts ci tali bi. Mhm. bon accident moom mënul ñàkk bon day am mais comme ni nga gisee tey jii ñu am juróom benn téeméeri nit yu ñàkk seen bakkan. Mhm. xëy na loolu dina wàññeeku. vraiment de plus de la moitié. Mhm. ci euh, woote rek euh, jamono ji nga xam ne ñoo ngi ci màggal bi ci wàccaay yi lan nga am loo yebee euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi. waaw xam nga màggal dafa nekk de événement boo xamante bi yaakaar naa ne sa boo matul nekk na événement bu gën ci Afrique de l'Ouest bi boo xoolee. mu hmm. du moins bokk na ci yi a rëy parce que événement buy réunir ay presque cinq millions de de personnes. Hmm. loolu du lu tuuti. Hmm. alors comme nag ñëpp dañu am yéene dem màggal ji ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu dem màggal ji ci jàmm. dellu si waat ci jàmm. waaye nag bu ñuy dem comme bu ñuy dikkaat nañu sàmmonteeg sàtt côté la route nañu def ndànk. tey ci tali bi. parce que def ndànk te daw kenn egg fa nga jëm. nañu def bu ñu sonnee nañu wàcc oto nañ def bu ñu gëmmentoo tamit nañu wàcc oto yi dem nelawi ji nelawi ji parce que euh, danañu euh, gëmmentu dawal mm-hmm. dafay multiplier par huit le risque d'accident mm-hmm. loolu daal je pense que ñoom bu ñu ko defee te xam ne aussi am na heure yoo xamante ni voyager si aussi Euh, peut-être mën na indi ay ay ay ay njeexital donc daal je pense que ne les trois facteurs la mooy coono euh, xel yu metti ak gëmmentu dawal nañ ko moytu bu loolu weesu tamit nañu ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak dal ci tali bi loolu buñ ko saxoo euh, mën nañu ci jàmm dikkaat ci jàmm parce que accident yi bëri na trop te askan bi jaaxle nañu askan bi tiit nañu euh, même au niveau de l'état nit ñi tiit nañu donc nañ def loolu loolu bu ñu ko fee yàlla mën nañu suturaal ñu dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm. Matar Faye ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di sant yéen di leen gërëm ci invitation bi.